naka voyage bi mbaa mettiwul mbaa yegg ngeen si jàmm. alhamdulilah rabil alamin egsi si jàmm équipe nationale Sénégal tamit démb ci ngoon la egsi fi nga xamante ni mooy Caire vers vingt deux heures maanaam euh, euh, vingt vingt euh, Sénégal donc mm-hmm. Lions yi ñoom. ils sont bien arrivés amuñu mm. benn problème pour euh, egsi fi nga xamante ni seen mooy seen hôtel. bi ñu egsee tamit euh, fédération sénégalaise de football ak euh, ambassade du Sénégal bi nekk fii ci Caire. Mm. barki dema jot nañu réunion. Mm. waxtaan seen biir. xamal ni du ñu permettre benn supporter sénégalais mën na def déplacement parce que supporter ñu ngi doon mobiliser wu bu baax pour mun a ñëw tertu ñi nga xamante ne mooy les nouveaux champions d'Afrique mais comme période contexte Covid lañ nekk nee nañu bëgguñu am benn problème ak équipe adverse parce que équipe adverse mën na profité ci euh, rumbulement bi pour wax ni effectivement euh, mm-hmm. sénégalais yi ñoo man ñoo jaxasoon ak corps étranger yi. Mm-hmm. donc euh, du coup dëmb bu ñu egsee lu gën a singularisé aussi seen arrivée mooy l' état égyptien c'est-à-dire la partie égyptienne avait déployé. Mm-hmm. plus d'une de policiers. pour que ñu mën a ñëw encadrer li nga xamante ni mooy périmètre bi équipe nationale di jàll donc ce qui veut dire quelque part. fédération bi ak euh, euh, ministre ak euh, ambassade bi wax nañu dëgg. Mhm. donc xam bëggoon bëgguñu woon supporters yi ñëw te les rares supporters égyptiens yu ñëw tamit baroon nañu trop mais. policiers repoussé nañ leen euh, nettoyé nañu périmètre bi nga xamante ne foofu la lion yi war a jàll. Hmm. ils étaient à cinquante mètres de l' arrivée lion lions donc euh, ñooñu nag gis nañu ni malgré tout tout cela bu équipe bi saa Sadio Mané moo njëkk a génn ñëpp daal daal di bëgg daw songu ko. pour hmm. mën a photo ak moom mais policiers nag euh, tere leen. équipe bi doog a dugg fi nga xamante ni mooy seen bus pour mën a dem noppalu. Hmm. hôtel Hilton Sermon bu Caire. duñu voilà. voilà champion d'Afrique yi ñoom ñoo fekki vice champion d'Afrique euh, ñaar ci ñoom ñaar. nag faaw kenn toog ñuy ñaan Sénégal euh, dem ci coupe du monde bi mais dama dégg ci euh, ñoom Cheikh Tidiane ñu naan jouer foofu ci keer yombul euh, yow yan information yi nga jot yi nga jot a am dam nu mu tuddati rencontre boobu narta nekk lu yomb ci suñu gaynde yi waaw sama naataangoo yi nga xamante ni ñoom si wàllu sport la ñuy yëngu foofu ñu nga toogal plateau ba hmm. wax nañu dëgg football fi nga xamante ni mooy stade international de Caire du Caire n'est pas du tout facile parce que stade bi tamit euh, égyptiens ñoo ko tuddee stade de la terreur te ku dëgg terreur rek xam ni bépp adversaire bi fi ñëw mm. euh, tu less de plumes euh, pour génn ci fi nga xamante ni mooy équipe bi mais quand même quoi que l'on l'Égypte aura la peur au ventre parce que Sénégal ak Égypte bu ñu dajewoon dernièrement Égypte moo perte donc Sénégal a gagné donc loolu ascendance psychologique bi go baax ji fii mais quand man barki dem am naa chance dem fekkee li nga xamante ni mooy euh, séance d'entraînement wu Égypte fi nga xamante ne mooy stade du 30 join du Caire. Mm-hmm. gis nañu ni ministre euh, égyptien des sports ñëw na. indi li nga xamante ne mooy euh, euh, xibaaru presque mën naa wax euh, message bu peuple égyptien. Hmm. pendant une vingtaine de minutes waxtaan naa ak joueurs yi ñëpp déglu ko bu mu paree tàccu doog a ñëw taxaw kanamu taskati xibaar yi def benn déclaration de deux minutes cinquante pour mu balaa mu dem te gis naa tamit joueurs yi bu ñu tëlee seen i bal balaa ñuy tàmbalee waxtaan bi entraînement bi waxtaan nañ ci seen biir gis ki mel ni Mohamed Salah nekk seen bi seen biir di wax moom tamit presque cinq minutes jël na kàddu gi pour mun a arranger li nga xamante ne mooy ay ñoñom donc euh, l'un dans l'autre effectivement Fatick. Mm-hmm. marché euh, suba bi du nekk lu yomb parce que euh, dans la presse au niveau de la presse locale nee nañu euh, une image il n'imagine même pas mm-hmm. euh, la défaite parce que plutôt l'élimination de l'Égypte parce que Égypte tamit bëgg na participer li nga xamante ni mooy première feetu football mondial fi nga xamante ni mooy Qatar Qatar di dëkk naar comme ñoom quelque part que sur le plan euh, psychologique mm-hmm. l'Égypte est en train de bien se préparer et tamit boo doxee doxantoo ci mbedd bi mm-hmm. saa yi nga xamee ni Sénégalais nga dañ lay jox rendez-vous suba fi nga xamante ni mooy stade de la Terreur parce que pour égyptiens mm-hmm. ils ont va-tout à jouer et tamit euh, Sénégal war mën a xam ni euh, match boobu du yomb mais comme je l'ai dit tantôt la peur est euh, dans l'autre cas mais cela ne veut pas dire carrément que le Sénégal va dominer le match statut de favori am mm. euh, de champion d'Afrique am il faut mu mun ko euh, euh, jëm a jëm a jëm jëm a protéger aussi. RTS Chérif kenn ku nekk mën na poser benn question rapidement laata ñuy. kati ca kaw ñu ngi lay nuyu Bakary maintenant quel est le programme des Lions aujourd'hui Chérif euh, le programme il est tout simple les lions pour l'instant dañuy yeewu jël ndekki le le petit le petit déjeuner de ce matin il est il est facultatif ku bëgg a ndekki nga ndekki ku bëgg noppalu nga noppalu demb nag bu ñu egsee ñu bëree def nañu bain froid et tamit am massage ba tard dans la soirée euh, tey nag euh, à 17 heures heure locale c'est-à-dire quinze sept heures trente heure locale quinze heures trente GMT nañ def euh, mooy euh, seen première et seen unique et dernière séance d'entraînement fii euh, si ba dañuy leen occasion pour pour mun a familiariser aussi stade bi jëli repère donc pendant une heure de temps ils vont essayer de tâter le pouls du stade du Caire Aussitôt après la salle d'entraînement, Aliou Cissé fera face à la presse euh, pour la traditionnelle conférence de presse pour mun a euh, joxe li nga xamante ni mooy euh, température équipe am mu te tamit wax ñu wax ñu aussi nu muy waajal match suba bi. Marcel Malick. Bakary maa ngi lay nuyu est-ce que mën nga ñu gën a leeral ci wàllu état de forme joueurs yi ñu ngi doon wax ci wàllu Ismaïla Sarr joura jouera pas naka la gaynde yi yeewoo tey. Bon, de façon disparate, hein, les, les joueurs sont arrivés avec des états de forme euh, différentes parce que, différents plutôt. Nous savons Euh, équipe bi euh, du ñëppay football tout le temps seen i club am na ñi temps de jeu euh, ils ont bon temps de jeu am na ñi nga xamante ils ont temps de jeu familial mais moi je pense que tamit du nekk li nga xamante ne mooy handicap parce que gis nañu ni Coupe d'Afrique des Nations am na joueurs yu bëri nga xamante ni football lu bëri seen équipe mais Aliou Cissé en a profité de la fraîcheur de ces joueurs là qui se sont montrés parce que tamit bu ñu fa jógee réew baaxu baaxuloon te ñuy jàppoon ne ni ils n'avaient pas le niveau de leur club loolu c'est parce que euh, euh, euh, joxuñu leen chance mais seen i entraîneurs yi bu ñuy bu ñu leen gisee ñuy football Sénégal ñuy jéem a joxe li nga xamante ne mooy seen temps de temps de jeu kii di Ismaïla saar kenn xamagul euh, certitude bu ñuy xaw a am tuuti mooy euh, journal record bind na ko tey mooy euh, bu na Aliou Cissé du du chambouler en profondeur sa défense pratiquement day reconduire dernière défense bi nga xamante ne mooy finale bi c'est vrai que Sa Youssouf Sabaly il est revenu mais malgré ce retour là je ne on ne pense pas que Aliou Cissé pourrait être amené à chambouler sa défense l'un dans l'autre il faut dire que les joueurs n'ont pas la euh, le, le même état de forme et parce que ils ont ils pas les, les mêmes minutes aussi en club am na ñi nga xamante ni Euh, seen temps de jeu baax na am na ñu nga xamante ne seen temps de jeu famélique na mais comme je l'ai dit ça sera euh, toujours euh, une compensation pour Aliou Cissé parce que ça aussi am na ñoo xamante ni bu ñu ñëwee équipe nationale dañuy fàtte carrément nii ñoom du ñu football seen est-ce que ñu ngi xaar ay spectateurs ay supporters sénégalais yi nar teew bis boobu yaa ngi wax sànq ne pour des raisons de Covid ñu ngi distanciation bi ñu ngi koy respecté mais est bi on attend un certain nombre de spectateurs une jauge leur est leur est bu am solo la parce que euh, étudiants ñi nga xamante ni euh, jot nañ leen interroger te dem def nañ ko ci journalu record bi hmm. ñu ci bëre nee nañu pour l'instant dëggaguñu euh, ambassade bi ak fédération bi ñoom réunir nañu seen biir jël li nga xamante ni mooy seen expression des besoins jëbal ko waa waa ambassade donc hmm. ñoom nee nañu yaa sept cent euh, à peu près sept cent euh, euh, étudiants sénégalais yi nekk fii mm-hmm. te tamit am na communauté communauté des étudiants de l'Afrique de l'Ouest ñoom tamit manifesté noonu war na sañ manifesté nañ pour mën a ñëw li nga xamante ni mooy Lions yi malheureusement ils n'avaient pas encore reçu de réponse de la part de de de l'ambassade mais mm-hmm. waa ambassade tamit jëm nañ leen talal seen i suñuy micro xamal nañu ni effectivement ils ont eu l'expression des besoins des des des, des étudiants. Mm. léegi dañ doon xaar l'arrivée de la fédération pour jébal leen afin que ñu mën trouver li nga xamante solution. Mm. donc pour les étudiants sénégalais ak quelques ressortissants yu nekk fii jàpp nañu s'ils parviennent avoir euh, mille pieds. Mm. ça fera euh, l'affaire mais bon euh, accueil bus mais pour l'instant comme ni ma nu ma leen ko ils n'ont pas encore de réponse mais. quand même je pense bien que parti égyptienne bi dina leen dina leen leen bàyyil benn benn poche pour pour pour mun a permettre tamit Sénégalais. très bien Pape Djibril mais. Mm. dernière information ñu amoon dem ba ci ngoon mooy euh, ñoom même ñu bëgg a jëndee billet il n' il n' arrivait pas à avoir bon côté Sénégal bien sûr léegi nag xaw ma lan moo waral loolu. comme équipe nationale Dembélé soog a egsi peut-être tey ñi am yeneen yeneen yeneen yeneen information mhm. de la part des autorités ñi nga ko football euh, Sénégal aywa alors euh, Bakary ku nekk xam na ni euh, match bi comme ni ñu koy faral di waxee sur le plan psychologique ak sur le bataille mentale bi daf ci am solo trop. te genre euh, dëkk yooyu ràññee nañ ñi en général bu ñu fa doon ñëw. Euh, tracasserie yi dafay commencer aéroport sa hôtel ak euh, pression bu nga xam ne day métti trop c'est vrai que lions yi démb la ñu ñëw suba la ñuy fubal xëy na diggante boobu pour ñu sonal leen fii dina am dina du yomb mais yan matuwaay la ñu jël pour que benn pression wala benn infiltration wala benn coono ñu bañ ko teg suñu équipe nationale boobu ne. bi bu ñuy egsee fi nga xamante ni mooy euh, euh, aéroport avant l'arrivée de l'équipe gis nañu ni euh, égyptiens yi indi nañu ñaari xaju renifleur pour mun a xool xaj yooyu mun nañu wax ne ay policiers lañu aussi pour mën a xool un peu li nekk ci bus bi et mais mais dégg naa benn diplomate yi naan nañ taxaw si buntu oto bi comme ça xaj yi bañ a yéeg mun nañ leen ubbil fi nga xamante ne mooy mal bi pour ñu xool mm. mais boobu xaj yi bañ a yéeg un mm. loolu tamit c'est un fait parce que euh, euh, en 2014 bi bi équipe bi ñëwee. Mm. gis nañu ni euh, une séance d'entraînement bi ñu amoon. partie adverse bi bàyyi na ay xaj. ñi ñi ay ay joueurs sénégalais. loolu gis nañ ko. ça comme ni nga ko wax Malick bataille psychologique loon mais. taxuloon joueurs yi Alain Giresse yi jamono jooju Alain Giresse boo nekkoon entraîneur bi taxuloon. joueurs yi Alain ne si dellu ginnaaw parce que gis nañu ni ci lendemain bi ñoom ñoo mujj gagné li nga xamante ni mooy Égypte par un but à zéro pour avec un but de Mame Birame Diouf démb tamit am na benn fait bu marquant. Hmm. Euh, bi attiré suñu attention bi équipe bi excès bus bi immobilisé nañ ko pendant une trentaine de minutes mais loolu nekkuloon euh, li nga xamante ni euh, partie extérieure ko defoon policiers yi ñoom ñoo gisoon listu Sénégal. cinquante huit personnes lañ leen euh, délégation de cinquante huit euh, personnes lañ leen lañ de cinquante huit personnes lañ leen lañ mais bu ñu egsee vérifier passeport yi nga gis ni cinquante sept personnes ko nekkoon mhm. donc du coup il voulait avoir le cœur net pour xam beneen keneen euh, ki ku des fu mu fu mu jaar bu bien nañ indi passeport mais gars yi bu ñu vérifier mhm. ils se rendu compte que c'est du ministère des sports mhm. mi nga xamante ne turam mu ngi yoon waxtaan ak waaye Égypte door bàyyi bus bi mu dem ah, donc euh, effectivement le bus a été immobilisé pendant une trentaine minutes mais il y plus de mm. euh, pour xool ba xam méngoo na ak ñi nga xamante ne li nga xamante ne mooy moo nekkoon si liste jot peut-être dernière question xam ngeen ne CAN 2019 c'était en Égypte euh, gisoon nañu égyptien li ñu bëggee Sadio maane mais fi mu ne nii nag rivalité bu tar moo am digganteem ak Salah naka lañ ko accueillir waaw 32 mois après le, la dernière euh, CAN organisée au, en Égypte effectivement Lions yi débarqué nañu dem ba dans la fraîcheur de. ci mm-hmm. euh, ni nga wax loolu la ñun bi ñu egsee teel a egsi bi ñu egsee fii euh, lundi ba léegi à chaque fois que ñu gis égyptiens yi les mêmes questions reviennent Sadio Mané Mohamed Salah who is number one c'est-à-dire entre Sadio Mané Mohamed Salah qui le numéro un mais effectivement Oran Sadio Mané euh, euh, euh, c'est vrai que dañuy football ak Égypte mais quand même gis nañu ni égyptiens bëgg nañ ko. Mhm. maintenant il faut que mu préparer quoi de toute façon. tey xam nga Euh, nuñ ko mënta bëgg bëgg pour la première fois dañuy day dajee ak li nga xamante ni mooy Égypte seen réew fii. Hmm. donc marché boobu du nekk lu yomb c' est sûr que. Euh, il n'a qu'à s'attendre à un affaire sans précédent au stade euh, hmm. de du parce que quoi que l'on puisse dire égyptiens yi nañ ko bëgg mënta bëgg Mohamed Salah lañ gën a bëgg que Sadio parce que quand même Mohamed Salah mooy seen tête de pont mais tamit booleen leen laajee laaj leen dañ lay wax carrément en privé que ñoom ils préfèrent Sadio que Mohamed Salah intégration. intégration Sadio au pays ak intégration Mohamed Salah fii si Égypte des na parce que mm. Mohamed Salah ñëpp xam nañu ni nu mu nekkee euh, star day am tout le temps ay bis bi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo ngaan ko footballu Égypte donc euh, ce qui n'est pas le cas pour Sadio qui est vraiment le contraire de Mohamed Salah. Salah wér na Salah ndax wér na. il faut dire que ce sera un match très très compliqué pour Sadio et pour ses équipiers. Salah wér na. waaw mooy Salah mu ngi mu ngi entraîné mu ngi joxee bu baax entraînement première séance d' entraînement bi la la toog si banc bi tout seetaan un peu ay coéquipier parce que boobu tamit il était plus ou moins fatigué mais faut dire que Mohamed Salah na bu baax bal euh, parce que dernier match championnat bi nga xamante ni Liverpool ko doon football euh, toogoon na si baam bi moom euh, jàppoon na ne war na football match boobu malheureusement Klopp teg ko ci banc bi mal mais seen dernier match coupe bi moom ak Sadio yëpp Klopp dafa décidé bàyyi leen à la à repos parce qu'il doivent être à la disposition de leur de ne doon tooñ di leen xamal ni. Mm. Eh, da ngeen da ngeen am mm. au euh, euh, delà du stade euh, ni mu nekkee loo xamante ni du nekk mën na bañ a nekk zone de confort bien sûr pour les Lions le comportement de la presse égyptienne par rapport ak ni ñuy fouiner les mauvais points les bons points mauvais points du Sénégal ak yooyu est-ce que ñoom optimisme optimisme moo am seen côté wala ndax euh, ñoo ngi nekk benn frilosité. xam nga Pape Djibril yow boo toogee boo toogee jàkkaarloo naan yow xamoo football fekk yow yaa gën a xam football këpp di yow xam nga di nax nit ñi. mais xanaa déggoo déggoo ñuy commentaire Thiadiaye FC fii léegi. <laughs> donc euh, pour vous dire effectivement Pape euh, li nga wax dëgg la man li ma gën a marqué mooy bi ma egsee barki dem ba si entraînement wu égyptien yi. Euh, c' est vrai que bi ñu xamee ni j' étais le seul journaliste seen sénégalais présent pour l' instant ñoom ñëpp ñëw nañ ci man ku ñëw ku nekk ku ñëw day présenté wu jël sa numéro euh, et tout après jëm la mettre dans d' excellentes jëm la soutenir tamit ay information mais quand même euh, pour vous dire vrai la presse locale n' est pas du tout sereine pour ce match là ñoom sax dañ koy wax. Euh, l'équipe est en en reconstruction mais comme ni ma ko waxee seen titre yëpp boo leen jëlee ngeen traduire dangay gis ni carrément y a la sérénité mais quand même euh, c'est une équipe en construction te ñoom yëpp dañuy rêver dem fi nga xamante ni mooy euh, coupe du monde te ñëpp xam nañu ni entre diggante arab yi ak football. c'est c'est toute une religion dafa mel ni tubaab yi rek mais na l'un dans l'autre je pense que euh, pression bi dina tar trop parce que ñoom yëpp foofu lañ koy caler seen pression euh, ñun def nañu benn micro trottoir euh, pour avec cinq cinq confrères différents mais ñoom mm. yëpp lu ñuy wax ni mooy match bi du yomb côté Sénégal parce que euh, l'Égypte va euh, bénéficier du soutien de son public donc euh, comme ni ma ko waxee yi aussi ils pensent que ils ont ils auront un rôle à jouer sur ce match là mais mm. euh, man j'ai dit que bu fekkente ne côté boobu la du warul am problème parce que suñu jour yi tàmm nañu ay chaudron tàmm nañu euh, ferveur électrique yooyu parce que mm. tamit loolu dafa bokk ci football maintenant Euh, li ñu war a euh, man jàngat bu ma am tuuti si football bi. si hmm. match boobu je me dis que les vingt cinq premières minutes le Sénégal verra la furie euh, égyptienne mais bu vingt cinq premières minutes yi jàllee te égyptiens yi jotuñu dugal donc ils vont douter te bu ñu douter aussi. ñun mën hmm. nañ profiter pour sur notre temps fort pour faire la différence. mais quand même on va pas venir imaginer que on vient pour le match. Ah, Bakary wan Bakary Bakary Bakary pendant longtemps aussi doon nañ gis ay coups fourrés notamment liés à l'alimentation yooyu c'est des problèmes d'une autre époque wala il faut rester vigilant mm-hmm. intoxication yeeg yooyu non c'est la vigilance est de mise euh, côté boobu je pense que le comité de pilotage le comité mixte de pilotage de ce match là jël nañ ko plus d'un mois de cela à la base ils avaient même dit que bu ñu ñëwee ne vont pas prendre l'eau par la partie égyptienne donc je pense que tey jii nii ce n'est pas pour rien que fédération ñu làkk hôtel bi bëgguñu kenn xam ban hôtel la dal. Mhm. Euh, ce n'est pas pour rien que même dëmb ñun bu wootee pour xam ban équipe bi war a ñëw ils n'ont pas ils n'ont pas voulu nous nous lu ñu mujjee def mooy euh, traquer euh, avion bi ci jaww ñi doog a xam ne avion bi mu ngi toll Égypte instant yi te fii la war a teer teertu donc loolu technologie bi moo ñu permettre ñu xam. Mhm. fu ñu war a euh, fu ñu leen war a fekk fu ñu war a fuy euh, euh, équipe bi war a war a mën a wàcc mais au niveau. au côté de la de, de l'ambassade ils ont tout verrouillé au côté de la fédération aussi ils ont tout verrouillé maintenant après boo teelee ñëwee di nga xam fan la nekk ba mhm. maintenant puisque xam nañu ni équipe bi fédération bi ñu ngi nëbb bëgguñu xam bëgguñu xam ban hôtel la ñuy la ñuy la équipe bi war a ñëw ñun yëpp ñu jouer le jeu mhm. ñu bañ a tudd teel a tudd surtout équipe bi ba xam ne jour bi la équipe bi egsi mm-hmm. ñu xam ni waa fédération sénégalaise de football ni ngi fi si lañu binde joxe information normale mais non mm-hmm. pour vous dire que côté boobu effectivement euh, côté Lions yi sax Lions bopp ñoom ñoo njëkk a attirer attention autorités yi fekk na tam fekk nañu autorités yi si yoon boobu ñu ngi waajal bu baax parce que récemment gis nañu déplacement Guinée Guinée Bissau nu mu compliqué woon fi nga xamante ni mooy euh, mm-hmm. Maroc parce que Euh, sur place on a vu plus de huit joueurs guinéens nga xamante ne amoon nañu intoxication donc loolu nag tey euh, la jour yi gis ñu artu mais fekk na tamit fédéraux yi quand même jël nañu seen i matuwaay tey buñ boo leen lire journal record dinaa ngi gis ñu ngi fay bind euh, Larry kii di Abdoulaye Sow ñëpp xam nañu ni. Euh, c'est quelqu'un bi nga xamante ni il fait partie des éléments primordiaux de la fédération dispositif fédéral. il s'est déplacé lui-même pour mën a jàppale ñi nga xamante ne mooy ñoom Augustin Senghor ak yi. jërëjëf ak ñoom pour que euh, la préparation de l'équipe Sénégal puisse continuer et puisse de façon optimale. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey am euh, yi ñoo def seen loi bu ñu léegi dañ may dañ may def benn non dañ déglu ma rek dañ may jox benn tàngal ne ma jiiteel doxalal. léegi su ñu posé seen question su ma nee heure bi jot na dañ naan ma am naa question heure bi jot na ñu ne ma waaw su ma paree ñu cabaxal jërë ngeen jëf waaw waaw waaw li may waxatee ngi di ata demal Malick ñëw waxal li nga explique rek question la woon man mënoon naa ko poser waxal waxal wax leen wax leen voilà mooy ci affaire affaire lekk mhm. une organisation bu nga xam ne mhm. équipe nationale fu ñu dem ki leen di toggal la yóbbu donc keneen du leen toggal dëgg la mhm. am na solo jërë ngeen jëf bëggoon naa ko xoolaaj ba xam wàccewul fa statut champion d'Afrique parce que fàtte coupe bi quand jublu ci li nga xam ne et puis may préciser la ñuy jeexal je te le promets ah, euh, aspect sportif bi rek euh, fàttali stade bi on a on a nun revanche particulière à prendre par rapport à ce ah, dernier match football foofu la woon ci stade bi ñuy nar a dem mhm. contre l'Algérie donc de mauvais souvenirs on doit vaincre le Singadia aussi là-bas. vaincre noonu la woon ndeysaan tey tey sax tey tey sax dama dama amul benn pression sax léegi déjà l'équipe na dañ ah. ba ñu duma leen gars yi tëj ko ba amul fu jaar bu ñu sokkee dootuñu ko def bu subaa dinañ wax ci match bi euh, Fati waaw tëjël incha donc c'était l'avant dernier mun naa tëj léegi pare ngeen kenn ku nekk wax na li mu bëggoon wax ngeen waaw baax di seex nga yaa jaboot ay ca ku ne nga jaboote. réalisateur bi euh, ak équipe bi nekk der derrière dañ ma daan wax tout le temps heure bi jot mais ñoom sax tey ñi ngi cabaxal seen ay questions mu mel ne euh, c'est le football ah moom moo mën a def lii mais bon j'encaisse amul problème euh, dañuy dem léegi léegi ci ñaari yéenekaay groupe Futurs Médias muy l'Observateur ak Record